ñëwoon tey seet si ku tedd ki mun Mountakha Mbacké xalif général des Mourides wax dëgg yàlla yàlla rek moo tax ñuy wax mbégte mu rëy boo xam ne xamuñ fan la toll lañ fi jógee tey lu tax mu wax loolu mooy dañ fee ñëw ngir waxtaan. jëm ci nekkin bi nga xam ne mooy suñu mbokk usmaan Sonko ak ñu nekk ci kaso bi yëpp waane biñ ñëwee di waxtaan ak sëriñ bi li tax kilifa neex mu xamal ñu ne ñun lii nga xam ne moom lañuy dox si moom jiitu nañu ci ba pare firndeel ñu ni nga xam ne moom lañu ci jiitoo kon mooy wane ne moom tànk yi nga xam ne moom la doon taxaw ci senegal boobu ba léegi muy tànku jàmm ci la nekk ba léegi ngir yàlla ak yonent bi ak Cheikhul Khadim def na ko ñu gis diggante président Macky sàll ak président Abdoulaye Wade def na ko ñu gis ci weeru mars deux mille vingt un bi nga xam ne réew maa ngi takk ñëpp tiit mu yëkk ci kàddoom yëpp sedd loolu nga xam ne moo doon ay tànkam jàmm jàmm ci Sénégal ak ci réew mi bañ ñëwee tey loolu la ñu wane ne ma nga ca ba léegi kon amal nañ ko cant amal nañ ko ngërëm dalal na suñu xol dalal na suñu xel dalal na suñu fit waane wax ji yemewu ko foofu li baax li nga xam ne doon na ko def di ko def tey defaat ko tey yemale ko foofu lu tax ma wax loolu ndaxte li nga xam ne daf ñoo taxoon a jóg tam jiituñu ñu ci daf cee dugalaat loxoom ba mu gën a sori mooy dafa ñoo jox yóbbante bu rëy boo xam ne ay wax la mais itam loo xam ne lii jëf la yónni ñu ci ki nga xam ne mooy président Ousmane Sonko ne buñ demee nañ ko wax ne wax jii sa baay sa sëriñ sa mbokk gi nga xam ne waxal na këru diine l'islam yépp ci Sénégal moo la koy yóbbante muy wax ju tedd muy wax ju sell muy wax ju barkel ba pare nag ne la lii moom moo ko teg sa loxo vraiment ba ñuy ñëw yaakaaruñu woon sax ne dañ fa am lu toll noonu mais mbaaxu sëriñ bi moo tax loolu ma leen wax lépp muy lu rëy mu def ko tey ci réew mi defal ko ngir jàmmaam moo tax ñu ne am nañ mbégte mu rëy. yóbbante bi yóbbantewu la ba pare nag ñuy wax nag ndeen ñi nga xam ne ñoo yore kaaraange Ousmane Sonko te boobu ba léegi mënuñ koo gis ñun ñi nga xam ne ñoo ay mbokkam ànd ak moom te dañoo yore kàddu sëriñ bi yore yóbbantu sëriñ bi nañ ñu bunt yi. ngir ñu dem gis suñu mbokk suñu xarit Ousmane Sonko parce que buñ demee dañ naan ko lii sëriñ bi moo ko wax te sëriñ bi moo ko teg sa loxo loolu daal muy message boo xam ne bëggoon nañ ko def kilifa yi nga xam ne ñoo ngànk kaaraange réew mi tiim Ousmane Sonko ne ñun message dong lañu sëriñ bee ñu yónni kon nag ala il faut que ñu gis ko waxante ak moom li nga xam ne moom la ñu sëriñ bi yónni ñu ca paree nag parce que kilifa bu waxee ba pare ay waxam kenn du ko sànni ci mbedd la ñu waxante ak moom la ñu jëflante ak moom la mu teg suñ loxo pour ñu yóbbal ko son ko ba ñu dem bu ñu demee ba ca ndey mbilli gi nga xam ne moom la ko sëriñ bi jagleel ba ñu wax ak moom ba pare danañ waxtaan ak yéen presse bi wax leen lan la ñu sëriñ bi yónni woon. liñ ci bëggoon a teg rek te ñu sas ñu ko. muy sas boo xam ne dafa ñor conférence des leaders hmm. moo di que ñu gërëmal ko sëriñ bi ñu gërëmal ko sëriñ bi santal ko sëriñ bi li ñu fi fekk kawe na sunu njort ndax xam nga ni di dem ci soxla dajeeg sa kilifa ndekete soxla si yanu na ko ba diis jiitu na la ci soxla si ah wax dëgg yàlla sunu xel dal na ñu ngi dellu sunu xel dal sunu yaakaar yokk na Ousmane Sonko ci boppam xam na ne tey am na kilifa Ousmane Sonko ci boppam xam na ne tey am na wéeruwaay waaye am na tam ay xarit waaye Yewwi Askan Wi ba nga xamee ni yàlla ñëw na ay mbiram parce que dañ ko teg rek ci nattu yàlla kenn toogul ñi waroon a tukki tukkiwuñu ñi waroon a dem demuñu kenn ku ci nekk lii mooy sa itte ba ñu ñëw tey ci sunu yaakaar tey ëllëg mu wan ñu ni moo ñu ko gën a soxla def na ko balaa ñuy ñëw. taxawu na ci wax nañu fi mu jaar ñu di ko gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla yal na fekk safar yu baree baree bare yal na taxawu liggéeyam bi ba kenn du ko ci aw yal na ñu nekk ci suñu kanam ñun de kontaan nañu suñu xel dal na gërëm nañu sëriñ bi sant nañ ko képp ku nekk ci yeewi askan wi gërëm nga tey sëriñ bi sa yaakaar tam yokk na dara metteetuñu bi ñuy ñëw ñagg ñagg xol la ñu amoon ndax nee ñu bàyyi Ousmane waaye ba ñu ñëwee ba léegi mel na ni Ousmane ñëw na mel na ni Ousmane a ci sunu wet mel na ni Ousmane la ñu ca bëggoon yàlla defal nañu ko li ci des nag nañ ko bàyyi ci loxo yàlla ndax yàllaa yore lépp.